suivre sur Wassare Lamb Wassare TV ñu dalal Marley bu école de lutte Papa Kane dégg ngeen li nga xam ne moom la révélé ci ay combat am te ñu bari nee nañ ma mm. dafa am ñoo xam te dama leen ne Marley laay seeti ñu ne ma dañu dañ noo bëgg nga wax la ko nga wax ko ko parce que man moom man du ma nëbb ay wax mm. gars yi ne Marley gëmatul làmb Marley ba woon ak pii dafa am différence Marley gëmatul làmb ba ci côté entraînement mm. te ñu ma ñi ma ko wax say supporters lañ lan nga leen di wax waaw mais Marley gëmatul làmb te Marley mi ngi am combat loolu moom wax bu yàqu la rek xama fan la doon neexee ñu ne Marley gëmatul làmb ndax jëlatul combat mais ñun ñi ngi suñuy entraînement ñi ngi si lu ñu war a nekk amul benn combat boo xamante ne nii Marley ñëw na sumeeku ñu ne liggéeyul amul de combat yëpp dañuy ñëw taxaw liggéey liggéey bu wóor ñëw jaxaarloo suñu adversaire ndam nag yàlla moo ko yor ndax fii yaafuus xañewul jàmbaar mayewul yàlla mooy maye waaw suñu borom rek mooy maye lit lamb yi ngay gën a sax lu see boñeer nga koy ñaax est-ce que mais nag ñun ñi ngi si lu ñu war a nekk daal incha allah ñi ngi am suñu combat ñu ngi koy waaj bu dee maar la xelam dafa génn si lamb après dinañ comprendre. Mhm. ñu ñëw ñoo ci li nga xamante ne moom mooy cëppaandaw ba ndax dafay bëree koo xamante ni champion la koo xamante ni Sénégal gi yëpp xam nañ mën a bëreem muy nekkuréel la am nag ñeneen ma Marley moom dafay xaru waral ndax koo xamante ne dafa bëree bëre ba nangatut am sax ay combat maar la ñëw jël ko sa combat ak Neko Réel la parce que am na koo xamante ne euh, ba léegi sa supporter la mm. nee na pourquoi nga jël Neko Réel la nee na combat boobu àndu ci yow lan nga koy tontu ba pare. waaw kooku xamuma bu dee sama supporter la. Mm, bu dee sama supporter la xamuma. Mm. mais samay supporter yi ma xam xam na ne Marley Neko Réel la Marley ku dul Neko la sax bu ko jàppee da koy tër. mais xam nga ne am nga combat. bu bu mat combat. combat bu mat combat laa am combat boo xamante ni xam waaw romb na sax combat. <laughs> mais am waaw lu ma leen war a fay. Uh-huh. waaw lu ma leen amee lu ma leen war a fay moom wax dëgg yàlla. parce que tey xam nga mooy li may wax rek après ngay comprendre sax làmb yi ñëw ngay gën a comprendre uh-huh. si ngay gis loo loo mus a gis. parce que sëñ Bamba ak yeneen xam doom doomu yoo xamante ne mosoo leen a gis si kaw tribune bi uh-huh. waaw. yoo xam ne mosoo leen a gis si kaw tribune ñoo xamante ne boog Marley li mu doon indi boog da koy supérieur si mhm. kàttanu yàlla. instant bi Marley kon tëddatul nelaw. non non man instant bi maa ngi si sama entraînement de nekk si li ma war a nekk di wàcc suma combat mhm. waaw damaa bëgg daal bu nee suba la rek fekk pare naa. Marley ak Néko Rél kan moo dàq bëre. ah ndaanaan la de wax dëgg na sax ne ko moo dàq bëre maar waaw am na ñuy wax loolu. yow yaa ngi dégg jëw boobu. man moom kenn waxuma ne ma ne ko réer la moo la dàq bëre. non xam nga lan ngay dégg. est-ce la Marley na génn si ne ko réer la. waaw moo tax moo ko du question de dàq bëre. Mhm. man boog làmb ji. Balla Gaye rek moom si dàq bëre. non yow ñëpp da ngaa fan Balla gis nga gis nga look bi nga def ak yooyu yëpp yooyu dinañ ci ñëw. du question de du question de ay fan ak yooyu. mais moom moo ma dàq bëri si làmb yi mais burul Balla Gaye amul kuy tax sër dàq maa bëri si làmb. billaahi. mais barki sëñ Bamba moo may gënal. billaahi wallaahi taalaay man mbapat ndax man ñu taxaw bëree xam nga mhm. mbapat ba ñëpp taxaw jug man moo may gënal après ngay comprendre. Mhm. ba xam Farba Dia man dara si arène bi. Mhm. wóor na Serigne tuuba li ma mbapat ba tey bëreeguma ko si arène bi. billaahi wallaahi. te bu ma te man ak na ko relais bi sax xam nga bu ñu jàppante nii mbapat après ngay comprendre waaw. Balla Gaye Bombardier combat boobu loo ci xam. yàlla na Balla Gaye daan rek dóor mu daanu rek loolu la ñuy ñaan. Bombardier moo daanoon allez retour bi Balla neen daf feebaroon yow noo gisee Balla. non daf feebaroon moom xam nga combat boobu noonu boo xoolee mooy li ma wax dafa mun fu mu toll xam nga làmb a suux Balla Gaye tawat xam bañ a yàq làmb ji ak Aziz Ndiaye ndeysaan xam nga ñoom ni ñu meloon quoi si làmb jooju noonu Aziz ñëw tëgg làmb ji ba pare xam nga Balla it bëggul làmb ji ñëw taxaw te boo xoolee jël jël bi mu daanu foofu taxul ñu naan yenn jël yi waaw li fees la teg lii la teg ah. waaw. mais combat bi am bi ñuy ñaan suñu borom bala Gaye ñëw dóor ko mu daanu. Hmm. waaw loolu la ñuy ñaan de. te loolu mooy lan ndax Balla Gaye mën na dóor Bombardier mu daanu waaw yow yow mii sax mën nga maa dóor ma daanu dóor point la rek dóor point la rek Balla Gaye mën na ko dóor sax mun ne la waxuma ma ak daanu. Tapha Tine Boy Niang. que le meilleur gagne de. làmb la de ku ne nga daan sa morom. Mhm. Lac de Guiers tey euh, comme que yow rakkam nga léppam nga tey moom ak boo Bordeaux wala moom ak Eumeu Sène combat boobu noonu bu ñu la waxoon nga choisir benn ban nga ci choisir. ñoom ñaar daal kum si jël baax na hmm. waaw man nag bu ma sañoon sax xam nga day jëri Eumeu Sène jël revanche am yàlla may ko si ndam. Hmm. Hmm. yomb na ah, mais yombul xam nga tey jii ñun ay jaam lan xam nga du ma ne day dem am ndam far force mais sañ naa taxaw ne yàlla may ko ndam. nan nga gisee fan yi coowul gis nga Keba nga gis ñeneen ñu naan instant bi presque sax Alioune Sarr départ am li ci des bareetul. 31 octobre bi lay jeexal mais nan nga gisee coowul CNG. waaw tool seen général ko si yor rek baax na mais licence général li mbëri bëgg moom nan lañ ci fekk si rek xam nga ñu wàññi dagg yi xam nga li ma la wax nii yenn règlement yi nga xamante ne nii dem na ba làmb ji safeetut dara parce que yu bëri boo ko jëlee si làmb rek mooy culture làmb yàqu na nañ bàyyi xam nga yi neexal làmb ñu dund ko xam nga li ma la wax ñu wàññi tamit dagg yu métti yi quoi parce que tamit bëri dafa metti de da ngay waaj waaj bu métti. xam nga sa reliquat des fa ñu dagg ko ba mu des tuuti après yow doo comprendre. billaahi dafa métti quoi. Mhm. l' émission tire à sa fin. lan ngay tàggatoo wala lan nga bëggoon ñu laaj la ko te laajuñu la ko. waaw mais laaj nga laaj nga xanaa kay li wax mooy ñu santaar rek xam nga waaw di ñaanaat rek yàlla na suñu borom def jàmm waaw di wax supporter yëpp xam ñu waaj man maa ngi waaj bu baax di gërëm nag xam nga Alain ki nga xamante ni moom moo tëgg làmb ji waaw ane maa ngi koy nuyu xam nga moom mi ba France xama nga di nuyu Pape Sarr tamit ak Jimbo di leen wax ne xam nga seen ñëw ñoom am na njëriñ quoi ndax tëgg nañ ay combat yoo xamante ne nii ay combat yu neex la parce que journée boobu ñoom booy xool lamb yi ñu tëgg yëpp ay grand combat lan amul combat bu ndaw man mii sax bu doon maay ñëw njëkk a bëre sax yeneen combat yi des moo ko dàq waaw kon ñu ngi leen di ñaanal xama lu ñu mën rek saison yi di ñëwaat ñu mën lu ko raw loolu ñu ngi leen koy ñaanal di ñaanal ñëpp. xam nga di bëggee Pape Sarr Pape Sall borom Pikine waaw moom suma waay la xam nga suma lépp la jazz doomu nday Paquetas moom maa ngi koy bëggee wax dëgg yàlla di siyaare ñëpp xam nga di bëggee ñëpp di wax yàlla na jàmm yàgg waaw di leen bëggee yéen tamit waaw mafia bi ma àndal nii xam nga maa ngi leen di siyaare bu baax di leen bëggee gaa yëpp ñoom tam xam nga Moussa Gadizo Seydou Polu Bamba xam nga Alpha Omar sëñ waaw président fan si club bàyyi ne Mondong waaw xam nga rek moo bu marle <laughs> waaw xam nga réparé su ma rax moom it maa ngi koy bëggee bu baax parce que xam nga déggal na ma suma ma rax la su ma lépp la wax dëgg yàlla di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal mu am combat it xam nga am si ndam di ñaanal Pape Thiam moom it xam nga si làmb ji mu jëm yàlla may ko si ndam waaw maa ngi ñaanal ñëpp xam nga di gërëm ñëpp waaw di wax ne yàlla jàmm yàgg daal waaw mooy yoon. di ko béggewaat bu baax a baax l'enfant chéri euh, de Guédiawaye l'enfant chéri baax daat muy Marley mu nekk koo xamante ne moom suñu nit la ndax buñ ko soxlaa rek lépp day euh, day yomb di ko béggewaat bu baax a baax di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal sa di ko ñaanal salaam mm. moo xam li mu bëgg yàlla ko yàlla defal ci barke Seydina Mohamed mais promoteur bi nga xamante ne moom moo tëgg combat bi muy Alan ñu koy béggee bu baax a baax ndax euh, wax dëgg yàlla affaire yi moom ku yokkul dangaa wàññi te moom dafa ñëw yokk mm. ndax ay combat jeune la tëgg te jeune la comme yéen mention spéciale la wax rek yàlla sa jàmm yàgg fa nga nekk yàlla fa yàlla defal mm-hmm. jàmm ah, di bëggee nag ki ko bu Pikine mais Pape Sarr bu àdduna la ñu ngi koy bëggee bu baax a baax nag moom sama doom la mu nekk suma xarit nekk sama lépp a a gëm muy réparé nekk lépp lu ma bëgg rek da ciy dox yàlla xam na ko am na service yu bari dama koy doxal te waneewu ko jëfeewu ko di ko ñaanal jàmm moo xam li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal ci barke Seydina Mohamed ndax moom sama doom la sama xarit la daal ndax mënu maa wax ci moom di ko remercier di ñu wax nag Alain nag damaa bëgg na nga wutal ko combat nag ndax sama doom la na combat yi ñëw di bëggee nag ñëpp waa mafia bi ah kulim jum ah, di di ko bëggee moom kàggu mi nga xamante ni ah, dafa bàyyi léppam ndax man su ma ne ko acca rek mu ne acc yal na ko yàlla defal jàmm ñu ngi koy bëggee waat bu baax a baax a baax di jox ñëpp ah dig daje ba prochainement ndax yéen wax dëgg yàlla internet yi amuñu seen fay yàlla même seen fay yal ko yàlla def ci di barke Seydina Mouhamed d'ici là portez-vous bien jaajëf waay